وكب من أنكر tool yi nga xam ni Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre am na ko fii ci Jolof ci wetu Thiel dañ dëppee ko Hisnul Abraar ginnaaw bi ko Serigne bi sancee def fi daara bay na fi ci nawetu atum 2022 bi muy mbay moo xam ni bay na fi mboq ak gerte. waaw xam naa tool bi toolu mboq bi moom daa doon ñaar nag benn bii moo xam naa ci benn hectare ak xaaj tere tool. des na fa di benn boo xam ne xam naa dina mat ñaari ectar waaye li ne moom hectare xaaj ci lay toll waaye des na beneen toolu mbok boo xam mi ngi ci biir waaye ñaari moom yegg na fi mu toll nii ak fii di booy xool lañ fi jiwoon mi ngi tolloon ci ay 40 kilos motul saaku 50 dañ fi indoon waaye jiwuñ foon lépp naan lañ ci jël war naa des ay di kilo ay 40 kilos yooyu daal xam lañ fi def waaw mboq mi nag xam naa ne bi ñu bëgg a tam xarit moom lañ koy door ji ko defoon na xam naa moo xaw am doole ndax ci tos lañ ko def moo tax xam naa yàlla suturaan ci mu yegg nii ndax moom dafa bëgg fu am fu mel ni tos nii wala nga def ci engrais bu bari fii nag dafa tos gu bees xam naa moom ñu ngi fi door bay moo tax li ñu koy yeex ji suñu borom def na mu yegg. tooli gerte yi moom it yaatu na lool lu tollu ci fukki tonnes ak benn yoo xam ni ji nañ ko. tool gerte bi xam naa mi ngi toll ci onze tonnes six cent moom lañ fi bay ci gerte. nji mi ñu ngi ko commencé woon xam naa ci mais weeru weeru weeru digg bi lañ commencé woon ci lañ commencé ji ñu ngi eggal ci xam naa bi ñu tëbaskee ba noppi nañ xam naa ñetti nji am nañ ndax ñëpp ñoo ji mu mu wow ñu ñu arrêté mu tawaat ñu jiyaat xam naa nji xaw naa rawante fi ñu nekk nii nag moom mooy nji nji nji lañ njëkkoon ji moom moo nekk ni ba tey nii lii moom yegg na moom fi maa dañu xaar ndox mi wàññeeku rek ban man koo man koo deqi waaye lii yàgg na woon bi ko doon kii mi ngi toll ñaari machine ñaari tracteur ñoo ko ji ñoo ko bay ñaari tracteurs yi tracteur bu nekk ñaari safoor la amoon safoor bii day fanaane liggéey ba suba yële si yandoo liggéey ba ngoon mu wàcc. toolu gerte yi liggéey bi àgg. li jëm ci bàddale gi muy mbàcc mi jëre gi roñ gerte gi ak ngooñ mi sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru di xalif de des Mourides sant ko sëriñ Sidi Naar Dieng. ndigali sëriñ Muntaxa moo ma ko jox ma joxaat ko taalib bi yëpp lu bari ci taalib bi teew nañu fi. sëriñ Sidi Naar Dieng jëfee ndigal li taalibe mi fanaan si ci talaata ji dëpp woon ak le 6 décembre 2022 bi ñu xëyee ci àllarba ji rek jant bi fenk taalibe yi soobu ci liggéeyu tool yi daa xilaamiya ilaa sukuuri man saqara lil xalqa baqa izaaman rabbi ya maaliki xaliili wal xabiib waxat ma anniya daaya tabiib برأني من كل عيب ومراد وخاد لي صحة في كل عراب baritu min uyubina fi biltija illa allazi abwaabuhu lam turtaja huwa alkarimu alakramu almukarrimu waliyaminu la yarimu alkaramu muhammadun wasilati wa junnati an kulli sooin waasan wa jannati yanqaadu minni ya salaamu taalibe yi wuy si nañu ak Pastef song liggéey bi ngir defee ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee foo tourné ci biir tool yi gis fa mbooloo moo xam ne kenn ku ne am na foo fare ndax dara da mën naa ne moom dara desul lu liggéey sëñ bi ndax mën nañu liggéey sëñ moom mën nañu moo liggéey suñu borom rek ndax sëñ Tuubaa moom dafa amuk fay te yaakaar te ñëpp def nañ jot ni liggéey bi ndikkee ne pour liggéey ko mën nañ si amee lu kaw suñu bi ñu ñëw dañoo dañoo lancé ni dañuy dem si tool yi bu ñu ko liggéey ba jeex ñu jàll yeneen tool te yaakaar naa ni bu fekkoon ak dogu nekk si ñun wala ak bëgg wala gëm-gëm yaakaar naa ñu bay dana fomb. maa ngi tudd Ngagne Sall bàyyi ko Dakar doon duglu ndigalu sëñ bi ba njëgee ni euh, joxe na ndigal ñu dem ñu dellu si ci tool yi pour. Euh, sukkandiku ci ndigalim kii ba ñëwee gis nañ tool yi yàpp na macha allah euh, te ñoo ngi ci def lu man daal. Euh, liggéey bi instant bi bàcc nañ ba pare ñoo ngi toll ci jëri waaw xam naa li ki des moom warugut a mën a bëri. Mamadou Ndiaye. Mm. ci Mboro. Mm. nu dikk nag. ñu jox nu ndigal noonu waa Mboro nu déparé Mbéré ñëw fii pour ànd ak moom liggéey bi maanaam ci niñ ci waaw niñ ko liggéey xanaa Pastef rek ak liggéey fas yéene rek rek doon ñaayo xare rek ba jógee fi li nga xam ne mooy ndigal ak bi daal moo nu fi indi nu fas yéene bu nu fiy jógee ak taalibe bi nu fiy jógee. Modou Thiaw de laa tudd maa ngi bàyyi koo Touba. ñun murid moom liggéeyal sëñ Touba rek la ñu am te lii day dañuy yokk sun sun pas-pas da koy yokk waaw. bi Serigne Mountakha joxe sëriñ Sidi lëggéey bi da koo yëglee na ko daan lëggéey li nga na mu ko daan yëglee liy cosaanal yëglee ci kër gi. mooy na ko Serigne Naar wajuram ba daan defee ci mboolem ku fi musaana nekk ak euh, ku fa musaana nekk ci njabootug sëriñ Touba mbooleem nu nu sëñ naar nu ko lëggéey boobu mu sa ñore rek na la liggéey bi ñore Serigne Sidi ba tax na mbooleem Kajoor Bawal Siin Saalum Ndakaaru ñëpp la dajale ngir jox yitte gum jox eh, liggéey bi yitte ak dayo bu ko jox ak jàpp ni ndigal ya weesu moo ndigal lu yees lii mu ñoo yem képp ci moom. mu ngi leen di xamal ni daal nam daan téye ndigal la nga xamante ni noonu lañ daan joxe sëriñ naar ndigal mu daan jóge ci këriñ sëñ Tuubaa ni la téye ndigal loola noonu la fonke ndigal lii. lu jëm ci ndiqim tool mi am na ñu jiiti si woon doon ko def boole kook naaf yi loolee ñu ràññee ci waa kër sëriñ Malick Bassine si ak sëriñ Mor Khary Sy ñu amoon ci taxawaay bu am solo lépp ñu àndoon ko ak sëriñ Mourtala moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdoul Khadir kon nag euh, barab bii nga xam ne sëñ bi da ko naal muy Cheikh Mahamadul Basir di barab boo xam ne mu ngi fii ci Jolof te Jolof it nekkaat beneen euh, baas ci ci ci kër sëñ Mor sëñ Malick ni nga xam ne noonu la taalibe yi ci biir tool yi doon liggéey noonu it la amoon ñeneen ñoo xam ne ñoo fare woon ci waañ wi di waajal ay berde yoo xam ne ñoom lañ koy jagleel. kon ñu ñëw dongay tàngal kafe nekk ni si Diop ak Aada Ndiaye ñoom ak ñi àndal ñëpp ñu ñu ñu nekk ci tool yi ñi ne ne ci waaj wi soxna Mati Gueye ñoom bàyyi ngañ ñoom ñu ngi ci waaj wi waaye ñu am pëstéefu nen ko sëriñ bi bëgg na defee ko ni ba ba am ci ngërëmul sëriñ bi. waaj waajtaay bi ci waañ wi comme nañ ko daan defee rek comme li ma wax léegi rek dara sensé wu ci nan daan waajee rek ci xel kom yi nga xamante ni moo weesu woon na ko sëriñ Saliou daan joxe sëriñ Naar mi ko daan waaje noonu ci waañ wi noonu lan noonu rek la demee. sukk jébbalu joxe suñu bopp àdduna ak alaaxira loolu nag du waxi kese loolu wax ju ànd ak jëf te doomu aadama dañoo wax ni melul na mu waxee na mu jëfee la mel waaw kon waañ wi nag di waañu kafe yi donga yi nekk fi maanaam lekki ak ak euh, waañ wi jigéen ñi ne fi ñoom it li war lépp ñu ngi koy def bu gaa yi wàccee ñu jox leen ñu lu gaay yi ne ci tool yi ne ci mbàcc mi ak jëri mi def ko ni ko sëriñ bi bëggee. santaat bu baax a baax nu yàgg mu yàgg noo woo nu yàgg ko wuy si ñaan yàlla fas yéene fii yegg tey ci ci ngoon ban gontu dem lu ngeen jéem. lépp loo xam ne lii sëriñ bi soxla na ko da koy joxoñ ñu dem defee ko nam ko bëggee. kon noo sant suñu borom ci loolu bu baax ñëpp dëkk yi kenn daal di sut du neexalim nag la tàmbalee Kajoor maanaam njenne daari siidi Daaru Salaam Niis Mbar njenne Lugan ak daaray Maam Moor ak Luganuk sëriñ naar jenn mën naa la ni kulim da ngay juum waaye pays sëriñ bi benn pays desut kenn wale wut itam ñëpp ñëw ba Mbour ba Kébémer ba Ndand ba Kajoor fépp ñoom ñoo ñëw maanaam ni ñëw itam xol bu sedd guy yi lañ ci am ngir fas yéene ñëw liggéeyal sëriñ bi ba am ci xéwal yi nga xam ne bii maanaam euh, am naa ab tàmbali waaye amul fu mu yem. ndigalu bàddali tool yi Hisnul Abraar yi bi ko sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ siiru joxe sëriñ di Naar Jenn da ko ànd ak mboolem rakam yi. mu jox liggéey bu toll nii sëriñ Sidi nu ñu ànd ak rakam yëpp ak taalibe yi fas yéene ko defe ni ko sëriñ bi bëggee sant nañ ko ci gërëm nañ ko ci tey ñu ngi ko ñaanal mu yàgg lool te ñaan sëriñ si di mi ngi ko joxe tam sama borom yàggal ko te dolli ko kattan ba lépp lu ñu ko liggéeyloo rek man ko na mu ko bëggee te nu ànd ko ak moom rakkam yépp ñëw nañu ak nun ñi nga xay nooy taalib yi ànd ak moom fas yéene lépp lu ñu ko joxe rek nu defaale ko ni mu ko bëggee nun nag waxuñu na sañ bi bëggee ne sëñ sii di leen wax moom nag moo mook sëñ moom ñoo xam ñuy def ñoom waaye nun ni sëñ sii di bëggee moom lañu ñaan waxtu wu ne bu ñu ko joxee liggéey ñu defale ko ni mu ko bëggee kon nag sant na yéen yéen ñëw tey sant ñi ñi taalib yëpp suñ jëwriñ ji muy sëriñ di Naar Jenn ci liggéey bi nga xamante ni sëriñ mën Mountakha moo ko ko digal ngir mu baddi toolu Cheikh Bassi mi nga xam ne mooy jëwriñam ji léppam ndax taxawaayam ñun ñoo ko war a defal ndax Cheikh Bass taxaw bi mu taxawu ci yoon wi ñun tam taalu bi ñun tam ñoo ko war a taxaw ci fànn googu ndax ñàkk jotam moo taxoon gisu ma ci beneen liggéey ca beneen ndigal bu nekkutoon ci leneen beneen liggéey beneen ndigal kon fii la moo fi jiit kon nag ñun ñoo ko fi nekkal euh, lim fi war a taxaw lim fi war a def ñu di ko fi defal kon nag ñu ngi leen di ñaan ci barkeb maam Cheikh Issa Diène barkeb Cheikh Ahmad mi barke Cheikh Naar képp ku fi teew yàlla na Sëriñ Tuubaa faj say aajo yàlla na Sëriñ Tuubaa defal ndimbal ak tawféex ba bañ gën koo man te yàgg koo ànd ak moom mii nga xamante ne mën ak suñ kanam. Pastef ak dogu goo xam ne wane nañ ko ci liggéey bi moo tax ci benn fan rek lañ ko liggéey dajale gerte gi roñ ngooñ mi yépp indi ko ci biir daara ji. ginnaaw bi liggéey bi matee sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Mountakha moom sëriñ Bassirou moom la fa sëriñ bi yabaloon ngir mu ñëw yeewi mbooloo mi. Serigne Mouhamadul Bachir moom Serigne Abdul Xaadir sant na bu baax a baax Serigne Sidi Naar Dieng ci liggéey bu am solo bi nga xam ne defati na ko defee ko Pastef. kon Serigne bi. kon bi ne. baax. mi ngi lay nuyu bu baax. mi ngi lay sant bu baax. mi ngi lay sant bu baax. mi ngi lay gërëm bu baax. mi ngi lay gërëm bu baax. ci liggéey bii nga xam ne. ci liggéey bii nga xam ne. liggéeyub sëñ Touba la. liggéeyub sëñ Touba la. woo la ci. woo la ci. nga ñëw. nga ñëw. ànd ak mbooloo mi. ànd ak mbooloo mi. def ko ni mu ko bëggee woon. def ko ni mu ko bëggee woon. loolu nag. loolu nag. laa xaroo fii. nee na loolu day. dara ci kiimaan nekku ci. ndax li tax. ndax li tax. mooy Serigne Touba bu soxlaa. mooy Serigne Touba bu soxlaa. woo Cheikh Issa. woo Cheikh Issa Diène. ne ko kaay liggéey. ne ko kaay liggéey. ci tool bi ci tool bi. loolu du kiimaan. loolu du kiimaan waay. ndax. ndax. ku ne xam na ku ne xam na ne. sëñ Issa Dey. sëñ Issa Dey. amoon na cër ci sëriñ Touba. amoon na ab cër ci sëriñ Touba. boo xam ne. boo xam ne. sëriñ Touba day gën a bari le. sëriñ tubaa de moo gën a bari le. waaye cër ba sëñ Issa am dey. du ñëpp ko am. du ñëpp ko am de. tool yi ak daara ji liggéey la boo xam ni dafa ñor lool sëriñ Bassirou Mbacké moom sëriñ Abdou Khadre. tool yi ñor gum ko ñor sax waaye tool yi boo xoolee liggéey bi jàmp na jàmp goo xam ne nii ñor gum ko ñor tax su ñu mën koo liggéey waaye lii kenn jàppatoon na ren moom des na fi maa def dara ngir tool yi jàmp ko jàmp boo xoolee bi ñu koy ruuj daanaka bi ñuy noppi ruuj rek fekk taw bi kii matériel bi dajale bi yombut itte ju mag a mag daa xam naa ju mat moom la ci def moo tax ñu mën cee bay bay lii ñu fi bay sax ndax bay sax ñu bëri yëpp na jàpp na duñ fi mën a bayal tool nii waaye moom foo foo foo takk ñor gi rek romb na ko bis day woote di laajte fu tool yi toll di ko saytu bu baax a baax tool yi moom ñor na ko loolu wax dëgg yàlla te boo xoolee lim lim fi dépassé ak lim fi daj da nga xam ne tool yi ñor na ko. tool yi Hisnul Abraar yi benn la rek ci tool yi nga xam ne sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr bay na ko ci atum 2022 bi ndax yeneen daaraam yi ak yeneen tool yi bay na fa mbay mu yaatu lool.